asalaamualeykum mbokk yi seen yóbbalub ndaw numéro 28 Ahmadou Diongo Baye Diagal sama doom ndaw day yàgg naa am yaakaar ci ne saa yu màggee am cër bu gën cërub nguur waaye day fekk sa baay di góor te xalal la yoon yu leer te nga nangu ca jaar kon doo jóggi ci fiir doo tabbi ci miyeer doo dox ba réer sunu borooma lay aar te ndog du la gaar ba ma àq jërë géen jëf jërë géen jëfati